lañ nekkee PA yi kii jaay pharmacie PA yi fa lañ nekkee ku ñittewoo mën ngaa woote ci numéro bi incha allah dinañ jox tegtal balaa nga fay ñëw wax la ni muy demee ndax ñoom dañuy jékki-jékki rek ñëw te duñ laajte loolu tamit lu mat di bàyyi xel la kon ñu ngi koy bàyyiloo xel mbokk yi baax a baax kon euh, numéro bi 78 la 443 75 27. ba tey it koo xam da ngaa gént nag euh, di togg ceeb boo xam ne ceebub jën la nga yëg ne yaa ngi togg ceeb bi ceebu jën la Lol saa su amé rek ci gënt léegal na nitu wërse nga waaye nit nga xam nit nga ko xamné ne wàllu man na la yakal lu bari wala sa walu am am man nga ci son lool pour dog ci am dara eh, ko xam da nga gént di la ay jën gént di la jën saa bu ko nit ki rek na yegg ne sarax buñ ko tektal la mu jind ay jën saraxe ko na ko xam da ngay yëngu ci walu jënd ak jaay ci walu commerce saa boo ko rek day tektalé walu mbiri soti Euh, ba tey it koo xam ne dafa am aajo du ñaan yàlla fajal ko ko mu gént ñu jox ko jën saa bu amoon jafe-jafe dana yëg ne jafe balaa yàgg dana teqali ko jafe-jafe boobu bu dee li muy bëgg dana ci jot bu dee liy yaakaar dana sotti bu dee li muy bët yàlla mën na ko sottal moo tax ci anam yu mel noonu gént googu baax na lool ci aji gént ji moo tax ku gént lool rek mën na am yaakaar ci li muy bëgg ci jamono jooju. yàlla mën na koo sottal incha allah rabbi eh, ba tey bokk na ci gént napp jën bu mag moom saa boo ko defee aajo ju faju la saa boo ko defee rek yëgal ni jamono jooju li nga leen bëgg yàlla dina ko sottal te dina nekk loo xam gën ci yow eh, ba tey bokk na ci gént seen kër fees ay jën loolu am dex nga gis ne jën yi bëri na ci loolu saa bu amee ci gént rek day wane ni kër la goo xam ne barke mu ngi fa njariñ mu ngi fa wërsëg a ngi fa loolu lu mat di bàyyi xel lu baax a baax eh, ba tey bokk na ci eh, gént tout le temps ngay gént di jàpp jën saa boo ko def lu bëri rek yëgal ni say mébét yoo bëgg rek yàlla mën na ko sottal moo gént di napp jën ñooy nga gént dem ci géej ga di napp jën saa boo ko defee ba jàpp ay jën yëgal ne ay bëgg-bëgg yi ngay dox yoo xam ne yàlla dina ko sottal moo tax lu am solo la mooy gént di napp jën saa boo ko defee rek. yëgal ne say bëgg-bëgg yàlla mën na la cee defal féex wala ay yaakaar yi ngay yaakaar mën naa sotti li baaxut kay mooy gént napp ay jën yu ndaw yu tuuti saa boo ko dee gént di ko napp rek yëgal ne loolu ay jafe la ay gàllankoor la ci aji gént ji nga xam ne mu ngi koy gént wala ay wàll wërsëg wala am-amam mën na cee sonn lool eh, ba tey gént toog ak mbooloo ngeen yi lekk ay jën yu lakk boobu te ngeen lekk firit saa boo génn toog ak mbooloo di lekk jën rek yun lakk yëgal ni bu dee sa wàllu am-am euh, boo ci góor gu yàlla mën na la defal tawféex gént ñi di lekk jën yi nëpp tamit baaxut saaboo boo géntee di lekk ay jën yi nëpp wala jëm ni yàqu loolu ay musiba lay tegtale tawat wala ay tolof tolof wala ay gàllankoor yoo xam ne mën na laa gaar moom gént ñu jox la ko ñooy yem saa la ko joxee rek séentul ay tolof wala ay musiba yoo xam ne mën nga cee tàbbite mën nga cee bañ a gaaw génn moo tax ci anam yu mel noonu nekkul loo xam ne gën na eh, jën yu baax daal mooy jën yu mag yoo xam ne yàquwut dara jotu ko nekkul lu luñ firit loolu moom baax na bu dee kuy wut uh, borom kër gént ñu jox ko ay jën saabu bu gént ñu jox ko ay jën dana wane ne lu mu doon bëgg yàlla mën na koo sottal mooy mën naa dugg sëy boo xam ne mën naa baax gént di lekk jën yoo xam ne dañ ko lakk loolu it aajo ju faju doona koy doon danay doon xéewal gu baree bari wala mucc ci ay gàllankoor wala ay xat-xat eh, gént di lekk jëni fiir it eh, surtout ku nekk ci jafe-jafe saa bu nekk mën na ndektal jafe yoo xam ne mën naa yokk bu dee ko tawat tamit gént di lekk ay jën yun fiir it saa bu nekk mën nay tegtale ay tawatam wala ay jafe mën naa yokk ci mbir moom nga xam ne nekk na ci kon ala kulli xaalin eh, lii ay takk-takk wala ay tegtal la yoo xam ne yu mat a bàyyi xel la baax a baax kon gént nag day soppeeku ci kem tolluwaay nit ki ni mu toll ak ci jamono ji nga xam ne ay mbir nit ki toll na ko du caagi ne benn mbir mi day taxaw fu mu taxaw rek di kon ne jëmale fu kenn xamul déedéet ci tolluwaay yi ngay toll ak mbir yi ngay toll ci la ay gént di soppandikoo ngay mën a xam naka ngay jóge ak fan nga jëm kon ala kulli xaal nit ñi ni ñu wutee noonu la seen wàllu gént yi wutee ndax doomu yàlla def leen bind ci ak wute loolu lu mat di bàyyi xel la bu baax a baax. kon yàlla yàlla defal ñu tawféex bu baax yàlla defal ñu dégg ak topp euh, di gën a sant bu baax ci ñi nga xam ne dañuy bàyyi xel liggéey bi ak ñi nga xam ne dañuy partage lu aju ci wàllu vidéo yi ak ñi nga xam dañuy abonné ndax liggéey bi ñëpp ñoo ko bokk waaye nag liggéey boo gis bu ko ñëpp bokkee dañ koy teg ay sart yoo xam ne mooy liggéey bi jëm kanam moo tax bu ngeen gisee ñu teg sart yooyu day tax liggéey bi ñun ñëpp ñu mën koo ànd doxalandoo ku ne mën see gis sa bopp kon yoy yep ñu ngi ci sante yalla bax nak di ñaan yalla defal ñu tawfiq euh, defal ko mbolam yi nga xam dañuy bay kaddu xel inshallah rabbi kon di fatali numéro 78 443 75 27 ñi nga xam dañ ko wo ñu bëgg ku leen sétal wala firi gént wala defal leen li saxaar ak ñi nga xam ne dañuy bëgg gis waxat nañ ko gëj waaye la nekké euh, PA inshallah rabbi ku woote ci numéro bala nga ñëw nañu jox ay tektal yu leer bala nga ex inshallah rabbi yàlla yàlla defal ñu dégg ak topp wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala